mbokki auditeurs de téléspectateurs yi ñuy déglu ci suñu plateforme Jobas Info TV dalé nak jam ci seen xibaaru nawetaan yi mook 21e numéro tay ci dimanche bi 22 euh, septembre 2024 dinañ leen indil li nga xamantene moo naroon am ci euh, zone 11D ñu koy football ci stade municipal de kissan bu ñu jógee foofu dem seeti waa zone 1 Ongam euh, fa ñuy footballee fële ca CM parmi niñ dem seeti Bamba le Grand fële ca nga xamante ne mooy stade municipal de Babac euh, ci ñoom euh, zone 11A bu ñu paree foofu dem seeti Ousmane Ngom ci fi nga xamante ne moo nekk zone taset bi ak yeneen euh, information yi. ñu ñëwee rek fi nga xamante ne mooy zone 11D eh, waroon nañu amal tey eh, benn match bi doon dox ci diggante ASC Thiewo ak ay vétérans yi match boobu mujjewul am ndax eh, kisam dafa amoon dese ñu ñaan aji jëm ji yàlla xare ko àjjana. ñu demee rek fi nga xamante ne mooy zone 1 Ngam ñu ngi koy football fële ci CM Pax mi. Eh, naroon na fa am tey benn rencontre doon di dox diggante ASC maggite ak eh, Dajale match boobu tamit mujjewul am ndax eh, terrain bi moo tooyoon ci taw bi nga xamante ne taw na ko tey. kon bu ñu jege ci loolu rek dañuy dem seeti Bamba le Grand ci stade municipal de Babac Bamba ñu ngi lay ziar bu baax a baax. salaamaaleykum wa mbokki info TV ñu zone 11A stade municipal bu Babak amoon nañ fi troisième journée bi nga di C bi jongante match revanche match derby ci première heure bi bi Réveil de ak ASC de Tatin Serer waaye match bi euh, neexoon na mais ASC doogu leen mujjul jël revanche bi kii di ASC Réveil moo ko mujjee door ñetti bal ci dara nekkoon ne derby bu neex nag waaye ASC doogu leen dafa mujjee ñàkk match boobu. bi ñu demee ci deuxième heure bi mi ngi doxoon diggante ASC euh, naataange de Coxol ak ASC Ndiol Jobaas bu Babaak match boobu nag euh, dañoo tembo dañoo nul. 00 0 ken dugalul sa morom kon loolu mooy stas information yi fii xewoon fii ci zone 11 A bu Notto Diobass euh, suba nag am nañ li nga xamante ni moo di euh, quatrième journée au poule poule bi nga xam ne moo A ñu am fa ASC euh, Ngariñ Sport Plus moo war a tase ki nga xamante ni ASC Njuuxaan ak ASC duñ fay war a tase ki nga xam ne moo di ASC guy kon loolu mooy euh, événement bi war a am suba ñaari match yooyu fële ci stade municipal bu Babac xamee démb tase nañ fële ci stade municipal bu Babac aussi ci final bi amoon diggante ASC Fesane ak ASC Ngolaar euh, mi ngi nekkoon final coupe maire deux mille vingt deux bi nga xamante ne ASC Fessane moo ko mujjee gagné ASC Fessane dal réaliser li nga xam ne moo di triplé ndax coupe boobu moo gagné woon CNP bu daaw seen CNP bu deux mille vingt trois CNP deux mille vingt ñëwaat gagné waat coupe coupe du maire mille vingt deux kon ASC Fessane moo réalisé triplé boobu ñu ngi encouragé bu baax a baax ASC Ngola di remercier le maire euh, Alioune Euh, vraiment li mu def ci ci zone bi de protection bi ak stade municipal bi ak soutien yeeg euh, réaffiliation yeeg ak li ci li jëm ci aussi li nga xam moo di subvention yi ak yu bëri yi nga xam ñu koy jàppale ci zone bi ñu ngi koy remercier bu baax di remercier encore au passage aussi ñi nga xam ñoo di suñuy partenaire euh, au niveau de la de la commune mais di ci génne kenn rek koo xamante ne peut-être moo di plan international ñi fa teewoon démb initié lu am solo moo di le foot féminin mooy football yi nga xam ne jongante xale yu jigéen yi la démb aussi ASC Ndiol euh, Diobass wala US euh, Diobass wala Diobass Academy bi tase woon ak euh, les filles de l'ASC Dëgguleen ñu ñu mujjee def match nul bu ñu demee ci tiro bi ASC Dëgguleen les jigéen ñi ASC Dëgguleen ñoo mujjee gagné ak tiro bi ñu leen di félicité bu baax a baax kon ñu ngi ciy remercier ñi nga xam ne moo di waa Palan ñi nga xam ñu ngi jàppale xale yu jigéen ñi pour ñu sox euh, pour ñu mën a euh, suqali li nga xamante ne moo di footballu jigéen ñi fii di zone 11A bu Notto Diobass kon ñu ngi remercier ñëpp di remercier di féliciter encore une fois euh, comité directeur yëpp ci organisation bu rafet bi nga xam ne def nañ ko ci final bi di remercier le président Samba Sen ak engagement bi mu am ak service bu muy rendre zone bi ñu ngi remercier waat ñëpp remercier presse beeg euh, les forces de défense et de sécurité ñu leen di remercier bu baax di remercier mboolem ñu fa teewoon photographe yi yëpp final bi neexoon na lool lool lool kon loolu mooy li fi xibaar yi digoon waxoon ñu jox leen dig daje suba ak jàmm incha allah ci beneen euh, numéro ak yeneen information ak bambalo Beroŋ ñu sant di la gërëm euh, comme ni nga ko waxee rek dañuy dem fale ci zone 11 B bu Tassette ci seen championnat national populaire tey ji nag euh, benn jogante moo fa amoon ci wàllu senior yi diggante ASC Gandul bu Sipan ak ASC Bari Jam bu Tassette ASC Gandul nag moo mujjee daal ASC Bari Jam ñaari bal ci benn bu ko defee rek foofu ba léegi programme bu suba bi nag ci deuxième journée ba léegi. ASC Gaskulel bu Kër Birane mu war a daje suba ak kii di ASC Mbofoy donc mu war a doon match bu neex parce que ASC Mbofoy dafa am match nul ASC Kër Birane dal di amoon défaite donc ñu koy xaar foofu ci stade bu Tassette. jërëjëf Ousmane jërëjëf Bamba jërëjëf yéen ñu doon bàyyi xel ci li nga xamante ne mooy euh, xibaar nawetaan ji leen euh, ñaanal rek ngeen euh, continuer di abonné ci li nga xamante ne mooy page bi ak bale fàtte cloche notification yi ci loolu rek ñu ñaanal leen ñu fanaan jànd jàmm wala ñu yendu jàmm